keroog ba ma jëli autorisation jàkka ji ma dem ndar waaw ma dem ndar fekk gouverneur ngi mer lool ni ma dossier jàkka jaa ngi ma ne ko yow de jox la woon dossier jàkk hmm. dossier tabax laa la joxoon mu ni ma lu tax ma ni ko doo nitu diine nitu administration nga da xam ndax tabax bi travaux publics approuvé na ko ak itam ndax suuf si am na titre foncier hmm. waaye côté diine bi nag sa yoon na ci hmm. maa ngi ko fekk mu mer lool ba gis mer mi dal di mu jël téléphone bi woo commandant cercle ni ko Cheikh ngi ñëw na ko jox autorisation ma ni ko déet jëmuma fa demuma Tiwaawan mu ni ma foo jëm mu ni ko damay jël avion fii ci ndax jëm Ndakaaru ndax damay bañ benn film bu ma fara waaw mu ni ma kon kuñ koy jox ma ni ko nañu téléphoné Sëriñ Muniiru ni ko na dem Cees jege ko dem Thiès jëli ko commandant cercle jox ko ko man ma jël avion dem Dakar seetaani film bu ma bëggoon seetaan